président Diack voyage bu mujj bii mu bi mujj def Sénégal dama dégg dem fekk ko këram booba xalil laa àndal am na nañ waxtaan nañ lu war a mën ñetti waxtu ca biir waxtaan ba ci laa xamee ne maa ngi moom na bokk waalo waxtaan wu yàgg ñetti waxtu bi may dem ñu joxee joxante rendez-vous mu ne ma su ma ñëwaatee je vais te recevoir comme ça on va continuer léegi li ma bëgg nag mooy mu dellu euh, dama wax laa ci suba ne jàpp naa ne xeex bi nag day door a commencé maanaam luy ta li lu njëkk li ay dañ doon entraînement rek mais jàpp naa ne xeex nag pour président Diack dellu si day door a commencé xeex boobu nag du ngeen ci wéet parce que président Diack c'est une fierté sénégalaise c'est une fierté africaine mais c'est une fierté aussi du monde sportif du ñu nangu kenn di ñagasal ab deram fàttaliku leen yàggut ay tubaab dañoo dem càdd sàcc fa doomi càdd ñu jàpp leen France takk tubayam jële leen càdd delloo leen France loolu yàggut ah, yàggut li ñu doon wax les infirmiers bulgares te jàppoon leen Libye Nicolas Sarkozy jabaram la yónni mu jëli leen Lamine Diack bu doon citoyen américain France du ko jugé Sénégal nag amul doole France amul doole yi États-Unis waaye war naa am pullay boppam moo tax masala li ma jàpp mooy Sénégal président Diack fa mu nekk France war naa yëg ne Sénégal jóg na ngir mu dellusi ci réew mi loolu nag lu ñuy dox la di ko wax li ma bëgg mooy ñi nga xam ne ñoo doon yëngu ci lu jëkk lu mu gën a gaaw nañu demander audience président de la république dem toog wax ak moom bu loolu jàllee nag ñu sol seen dàll xalifa dina yëpp ñu seeti leen mouvement sportif Sénégal yëpp ñu seeti leen l'association des maires du Sénégal ñu seeti leen parce que nekkoon na maire Ndakaaru les centrales syndicales le patronat ñu seetlu rawatina ñu le patronat français parce que la France n'a pas des amis il a des intérêts mais elle a des intérêts mais la France a des intérêts au Sénégal wax ni li ñu bëgg mooy Lamine Diack dellu Sénégal en chair en os et en bonne santé et le plus rapidement possible qu'il nous revienne en chair en os et en bonne santé et le plus rapidement possible Euh, juge bu tribunal lépp daanaka bon néew ma déglu naa euh, li juge bi la loolu problème mu yi la da ngay ci daañu ko waxtaanee week-end ñun en tant que citoyen sénégalais li nu war mooy nu mobiliser pour que président Diack yëg ne Sénégal yëpp na ne li ñu ko def naqari na ko damay wax toujours ne il faut qu'on apprenne à faire nation faire nation lan mooy laa Diack mi tànkam bi lu ko laal yaramam yëpp yëg lu ma laal sama yaram yëpp yëg ko masata naka noonu war na na àgg ci ku lu laal benn Sénégal Sénégal yëpp yëg ne laal nañ loolu mooy faire nation mobiliser wu pour non seulement président Diack dellu si waaye xel dootu xalaat ñu dénk benn benn kuréelu àdduna ab africain ñu bëgg ko yëpp parce que nag président Diack jëkkewu ji Amadou Mahtar Mbow lu mu njëkk a def ba mu yore UNESCO bëgg koo soppi ñu tam ko ndëmm lu bon lu nañu wax ko saa suufi dafa doy moo tax euh, doyen bu yi jàllee na mu gisee waat pour nag ñu remobiliser ba Sénégal gépp yëg ne Sénégal yëngu na problème njëkk de si ci réew mi fu ñu war a dem ñu dem fa ku ñu war a waxal ñu wax ko ba France xam ne Sénégal dafa soxla doomam la France n'a pas des amis elle a des intérêts mais elle a des intérêts au Sénégal et qu'on doit mettre ça la table France kañ la respecte droit de l'homme ak yi ay ay ay financier ñoom li ñu nu sàcc ci alal lañ ko mën a wax suñ alal yëpp ñu pomp ko ñuy wax naan ay waxu caaxaan mooy la kon encore une fois mas maa ngi leen di masawu yéen ñëpp waaye na ngeen xam ne lii yéen ak Sénégal yëpp ko bokk seen wajur wi defut ci àdduna luñ koy fay lii lu sport lu bon luñ koy fay lii te nag daa am lu sëñ Tuubaa wax ñamaa yoo ko bokk daf ne ñaaw njort mooy di def lu baax ba noppi yaakaar ne yàlla lu bon la lay fay Lamine Diack du am lu bon